salaamaaleykum mbokk internet yi seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat di leen dalalaat ci plateau Bambey TV pardon comme ni di wéy si suñu émission yi ba tey euh, tey ñu dalal euh, Grand Ndiaye ah Grand Ndiaye da dañ ma ko présenté ñu dalal Grand Ndiaye euh, responsable la jeunesse de Benno mbokk Yaakaar diñ ko nuyoo dalal ko ci plateau ba pare ñu ñu ñu bàyyi ko mu nuyoo askan ci koy seetaan. bismillah bon ñu ngi lay fay soxna si mm-hmm. di rafetlu. invitation bi ngeen ñu invité fii plateau Bambey TV mm-hmm. ngir ñu waxtaan ñu ñëpp bokk muy suñu Bambey ak élection yi ñu génn mm-hmm. euh, grand Ndiaye tey tey euh, mbokk internautes yi ñuy seetaan buñ buñ la waxoon nga présenté bu la koy wax bon man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye mm-hmm. ñëpp xam nañ ma ci Ndiaye euh, ma nekk coordonnateur de la jeunesse Benno Bokk Yaakaar du département de Bambey di ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar

Euh, je pense que li du dem euh, jeunesse ben Bokk Yaakaar ñëpp moom la ñu xam euh, tey euh, la question qui qui qui qui vient juste après la présentation c'est euh, seen contestation ci ci ci ci dernière élection yi le la ni da gagné a xëy ne ni yéen Gana Gana moo gagné mairie Bambey. en fait avant ñuy répondre cette question. Mm-hmm.

yoon décidé ni muy décidé ñu xam ne loolu la actuellement. kon yéen Ndiaye ba tey yéen a ngi ci ci ci ci ci recours ci bañ euh, résultat yooyu. au fait ñu jàpp nañu. Hum. jàpp nañu. Hum. aujourd'hui hum. kenn mënagul joxe ay résultats yu officiels lu jëm ci commune de Bambey am na ñu ne ñoo gagné ñun nee nañ ñoo gagné def nañ ay recours ñoom def nañ ay recours jëbbal nañ ko li nga xamante

ñëpp voté ci discipline. Mm-hmm. dugg seen bureau de vote voté ñu opposition bi def ko camp pouvoir def ko amul benn problème ñuy gis jaay doole donc jusqu'à présent mënuñu gis ne jaay doole am na démocratiquement Bambey waa yi woote nañ ñaari camp camp bi nee na maa gën camp bee nee na maa gën jébbal nañ lépp loxo yoon dañuy xaar les résultats <laughs> man daal bon voilà Ndiaye nee na ñoom daal jàpp nañ ni ba tey ñoom ñoo nekk ci

ma doon def saytu élection yi mm-hmm. mais li mu wax dafa doon lu kenn mënut ni mm-hmm. maanaam ab élection mm-hmm. su fekkante ne présidentielle la ko jàpp nañ ne le président Macky Sall jàll na premier tour su fekkente ne législative la jàpp nañ ne président Macky Sall am na majorité assemblée nationale soo xoolee le nombre de départements yi am Sénégal muy quarante quatre je pense trente neuf Benno Bokk Yaakaar keneen nga xool ci électorat bi mu yegg ci ay 80 pour cent je pense que loolu mënuñu ko gis wax defet defet nag defet am na ci benn côté xam nga defet ci ban côté la am uh-huh. mooy am na ci côté opposition mm-hmm. parce que li tax mu am ci côté opposition bi mm-hmm. mooy que opposition Sénégal mm-hmm. ñoom ñëpp dañ doon contesté li nga xamante ne mooy fichier électoral gis nañ ne même fiche bi ñu doon contesté moo leen may ndam Dakar moo leen may ndam Ziguinchor ak d'autres localités kon jàpp naa ne fichier bi kon fiable na kon loolu defet la ci opposition xam nañ ne lañ doon wax ci fichier électoral dara amu ci. bu dee opposition am na defet waaye ngeen sur 39 départements boo leen euh, sur 44 départements boo leen nee gagné 39 39. Euh, euh, euh moi je dis que vous n'avez pas 80% de l'électorat. L'électorat du Sénégal, c'est entre Dakar, Thiès, Durban, Boutito, les Kaolak, ak euh, Ziguinchor bi ngeen tax vous ne pouvez pas avoir 80 de l'électorat au Sénégal. Nous am tuuti ñu am tuuti benn rappel. gis nga la coalition Ben Bokk mhm. depuis que ko formé Macky le président Macky Sall jiite ko. Mhm. ba tey est ñu top di on est majoritaire dans ce pays. Mhm. on on avait perdu Dakar. Khalifa Sall nekk maire de Dakar. il n'était pas avec nous. on avait perdu Ziguinchor. Abdoulaye n'est pas maire de Ziguinchor. il n'était pas avec nous. On avait perdu tout bas, le PDS gagnait Touba. Tengour, on est majoritaire dans ce pays. Donc aujourd'hui, même si fait quelques années, dès que nous sommes bébés, avec les nouveaux, moi je quoi. Même si nous gagnons, des toujours, nous sommes Parce que le résultat est a Non, non, il man ben, man damay damay damay damay plagier sama confrère ben journaliste qui xamantene dafa ne ni yoré billets billets cinq ban ngay au fait. ban dama billets cinq bëgg mais attends au fait interroger au fait dañuy waxtaan. du tout. faroo ci opposition pour sànni xeer Benno. du ci Benno pour sànni xeer. kon même objectif ci li ñu. Ah. élection yi jàll. Mm-hmm. gis nga résultat yi ci département Sénégal bi. gis résultat yi moom la may. nee naa la nee naa la ah. uh-huh. gagné Dakar. Uh-huh. boo musul gagné. Uh-huh. teewul ngay majorité. ñu gagné la Thiès. boo musul gagné. teewul nga am majorité. Nous gagné les Ziguinchor nous gagnons gagné teewul nga am majorité. nga gagné tous les départements du Sénégal sauf que mën a limal mais ça, si C'est vrai Dakar c'est la capitale du Sénégal Nangoulin. Thiès une grande ville Nangoulin. nañ. c'est une ville Nangoulin. mais ça ne veut pas dire que. on a une défaite élection unie comme dit le sama président parti waxee monsieur Sall. mooy que nous avons gagné. teewul nga majorité. su la ko gagné nous continuer di majorité je pense qu'il y' a un bel changement.

de Djoubel. Après, les grandes régions qui suivent, c'est Ziguinchor, ces Kaolan. Carte électorale, J'ai la carte électorale. Et je suis désolée, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Est-ce que vous allez continuer de contester carte électorale au Sénégal là mais Damanel, mhm. fi ma je sais qu'on a perdu là. Je sais qu'on a perdu Thiès. Je sais qu'on a perdu Siguinchor. Et après, ça ne nous empêche pas d'être majoritaire dans ce pays-là. Les élections sont là. Il y a des cartes de mm-hmm. Comptabiliser le nombre d'électeurs qui am ci Sénégal nga comptabiliser nous ak vidéos nous yooyu ñu nous la ñu am ak ñun des am majoritaire. comme comme que majoritaire nous des defet Nous Nous Nous non Nous Nous je veux quelque chose de palpable ce qui est palpable c'est Nous

sont interrogés les résultats ils ont a dans le département nga Benno contrôle ce département largement derrière les Askan malgré que comme nous on a perdu certaines communes différence 4700 voix département Kako am Koko département donc nous ne pouvons pas ñu ne ñu ça ne sama koy de passage à la politique mais gëm nekkatul fii laa koy waxee ci Bambey TV la lion di Bawol pour deux choses première chose mooy département bi dama koo làbbali làbbali yu metti loolu ñëpp nangu nañ la troisième chose malgré que sax résultat yi ci commune bi officiel mais soo xoolee njabootu Benno Bokk Yaakaar électorat yi ñu am dans la commune de Bambey moom électorat bi mu am ndax parce que su ma nee njabootu Benno Bokk Yaakaar naa ci ñi nga xamante ne topp ñu woon ndigalu président Macky Sall ku melni ni Moro Diallo top woon ndigalu président Macky Sall ku melni ni Asta top toppul woon ndigalu président Macky Sall de même ma ku melni ancien ministre Pape Diouf toppul woon ndigalu président Macky Sall ku melni ni Pape honorable député ancien député de Bénin Bob Yaakaar qui a investi sa femme ci bisu Yewwi Askan Wi bokkul àndaluñu ñun ci campagne et pourtant et pourtant et pourtant ils sont allés contre

parce que nañ contre. mais est-ce que le problème d'idéologie est-ce que c'était pas contre euh, euh, idéologie am idéologie ñoom idéologie. attends attends attends dama lay jox ay le yu exemple. Mhm. réunion bu mu centre pour defar équipe bu Benno Bokk Yaakaar ñu Moro Diallo gis nañ ko mm-hmm. kon ñoom dañ ne woon benn noonu ñoom lañ taal mm-hmm. mais man yàgg naa leen wax te li may wax je prends en témoin ñi nga xamante ne bokk nañ yàgg nañ wax yàgg ne mm-hmm. yéen ñëpp ay candidat ngeen on applaudit on est en démocratie mais ngir yàlla bis bu parti bi jëlee décision ñun ñëpp en tant que militant discipliné nañ ci rangé ba président Macky Sall jëlee décision ci daf koo bañ Pape Mbodj daf koo bañ Pape Diouf daf ko bañ mm-hmm. parce que nous, xam nañ ne Assane était candidat ci coalition Benno Bokk proposé par l'honorable député Pape donc Assane mm-hmm. nous suñu accepté wu mu mm-hmm. du jité yéwi Askan nak man may may may ma xawa parce que ku gis ku gis. ku pas. non non dama xam nga tax ma parce que aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui

je déclare qu'Aïna n'est plus la rien au niveau du département, elle n'est plus la rien au niveau de la commune de Bambay, car les résultats, ils n'ont pas. Est-ce que diaponique, euh, qu'on choisit choix contester beaucoup les, les, problèmes de Beno Bokéaka au niveau local avant Pour moi, les choix du président Macky ne mm. sont pas à contester. Ah, ah oui, Mam,

waa coalition Benno Bokk Yaakaar suñuy responsabilité parce que aujourd'hui je peux dire que Pape Diouf li ñu fayee mm. ci le président Macky Sall le mm. ci la le ànd ceeg Moro Diallo pour xeex président Macky Sall mën naa l'ancien député avec tous les privilèges il veut état bi may mën naa ne moom la jël ñëw ànd ak Assane Dia di c'était pas reconnaissant de leur part mais nag am nañ ci droit mais loolu lépp ñu def ko ba tey fii ñu taxaw di wax

il était de la coalition Benoît Bobiaka. Asta Namoumane, il était de la coalition Benoît Bobiaka. Donc, Mourodjan et Asta, s'ils étaient loyaux au président Macky Sall, que eux disent, nous dégg sax ay recours ak ay samba dem ba laminer leen ndaw aussi. donc en termes d'électorat. parce que vous avez fait un mauvais choix. on n'a pas fait un mauvais choix on a fait un très bon choix. parce que accepté wu leen ni que Macky Sall. xam nga xam nga man j'accepte pas.

ok voilà le problème donc le tasaaroo moo tax Monda, là aussi japonais, elle est toujours là non ah, non non je ne vous permets pas la permettre de dans un département 4700 ah. voix ci département su Non, je c'est ça la réalité c'est ça la réalité. Donc, donc aujourd'hui, mhm. je vais lancer un appel à tout le monde. Moi, je campagne de Pas de même campagne. Tu gagnes à cela. Demain élection, tu gagnes à cela. Dossier, il y a une justice. Nous, nous, nous, xaar li nga xamante ne justice moom lay décidé ñu xamante ne loolu la ñu accepté ko def parce que on est dans un pays de droit amul leneen mais daal li ma mën a amul moom mooy léegi ngeen ni que tribunal départemental de Bombay, euh, gañ au niveau départemental. la et communal. mais. jusqu'à preuve du contraire et communal y a un résultat résultats il il tribunal direct au niveau départemental. on est ah, d'accord mais nous avons les résultats. du, du, même tribunal départemental au niveau communal. Voilà, si je suis un mon petit PV, un recours, je vais vous donner bail mais dossier bu justice aw ci droit de regard bay wax la ca donc je constate que les résultats contestés, ils ont dit que na pour dépliquer. C'est bon, bon dañuy un résultat mais avant lieu nous, ñëpp le Sénégal avons constaté que c'est vrai qui se réclamait millions de paroles, a été détrôné par la jeunesse du département de Bokk Yaakaar c'est un acquis qui est là personne ne nous connaît. mais là aussi euh, <coughs> je ne peux pas dire je ne peux pas dire sama bàjjen sama ça accepté va retraites politique. va le jour des élections elle a bien dit mais elle n'a pas encore fait la retraite nationale. Les ça la question objectivement. vous pensez que si Moro Diallo et euh, l'étudiant là tu sais pas Astako bokkoon nañ ci rang Benno Bokk Yaakaar est-ce que Aida dina seen soppe dama la laaj rek vu les résultats. mais Ndiaye non dama la laaj nee ma waaw wala déet. dama non question réponse la. Ndiaye wax ma waaw wala déet. kon duñu raw. kon duñu dab. kon kon man man dafa am benn affaire boo xamante ne. fii man maa la invité. ati posé waaw ma ma bàyyi may posé ngay tontu parce que Asako ak Almoro ñi nga xamante ñoom ngeen yaakaaroon yéen ñi nga tax bu ñu taw. dem ñun yaakaar ah. ñun yaakaar woon kenn gis nga Benno Bokk Yaakaar démocratie moom mm-hmm. la Mourou bi nekk candidat la mais ñëpp nangu candidature la mm-hmm. Asako bi nekk candidat la mais ñëpp nangu candidature la son excellence l'ambassadeur El Hadj mm-hmm. def na fi un grand nekk candidat ah, te nekk candidat boo xamante ne askan bi bëggoon nañ ko Ousseynou Kassé Ousseynou Kassé nekkoon na candidat mais bi président defee choix El Hadj Abdoulaye Dia moo nekk ki njëkk a def sortie

Demain, après, vous êtes deuxième. Non, on n'est pas deuxième. Demain, on a gagné la commune. Jusqu'à preuve le contraire, madame Agap, c'est maintenant qu'il y a que Beno Bokouyaka a gagné la commune de eh, Bambay. Et, eh, et, eh, et pour tourner population Bambay, de nuit par exemple, à cette distance, on bureau. Damanel, Damanel, la mhm. population Bambay ne peut pas Ah, il faut pas. Mais attends, mais nous devons parler pour des gamins bureau. Dès lors, tu fais de mon dos. Ah! Ainsi, c'est le bon guerre, et puis c'est normal. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a le droit de réclamer notre victoire, de se remettre dans texte mon école. C'est la démocratie. Mais juste que nous avons Bambay, mon nom, Bambay, mon nom Bambay, mon nous avons des de Bambay. Qui

et que euh, au niveau de il y a un député un ministre avec le candidat du conseil départemental. Mm. mais au niveau de il y avait neuf candidats contre il y avait huit contre Morgo huit candidats lui-même et je le dis ici a battu campagne à gap pour que Morgo perde la commune de Nagal mais les suivre

nous ñi bokkoon comité électoral départemental Nous avons wër des campagnes De Benno a dit ouvertement je ne reçois pas la coalition Bernard Bobbiaga dans ma commune je ne passe pas campagne avec le candidat choisi par le président. Je ne, je, je, je ne passe pas campagne.

Soudain tout du ko se dirigeait diriger kenn mënu ci mais ce qui est fait est déjà fait le président a choisi Babacar Tanak, nag wax dëgg fa résultat il ñu am dans le département de Bambey président tout monde est benn yoon ci choisir Babacar Ndiaye parce que gis nañ vraiment ni mu laminé opposition dans le département L'homme, nag soo ko gisee dafa am ñu bari ñu jàpp ci je peux je peux nommer honorable Fassel mm. nekk jigéen bu mën ànd Babacar dans toutes les communes de campagne je peux nommer le directeur de campagne du département de Bambey son excellent El Hadj Abdoulaye Dia ay moyens ou, engagement tant temps ou, durant toute la campagne et je prends en témoin ngeen baal ma ci li ma je prends en témoin Bambey TV et chaque jour que je fais on était ci ay proximité avec le directeur de campagne Elad Abdoulaye chaque jour que je fais nous ngi à ci ay meeting avec le directeur de campagne Elad Abdoulaye Dia résultat nag bu ñu am ce département de Bambey nous avons contribué contribuer nañ ci bu baka. a baax a ndax monsieur le maire Gana Mbaye la directeur de campagne ndax a ak gëm-gëmam président le candidat du département yi moom la le directeur de campagne ndax a ak gëm-gëm président donc nous jël caw gëm ranger ou tiraille. département de Bambey Morgom reste le coordonnateur incontestable ba pare des résultats bu ont durant toute la toute la région de Il n'y a que le département de Bambey qui a gagné son département il est le seul et pourtant il est ministre en portefeuille fouille il est le seul donc même quand on a en tant que militant discipliné ranger ou tiraille, continue de continuer la coalition coordonnateur kenn du ko fal sa bopp askan bi lay wóolu fal na ko te askan bi wóolu guñ ko waa Réfane nag wóolu nañ ko macha allah gagné na largement Réfane donc on salue on applaudit mais na yem ci ñoon parce que ñoo ñoo ko wóolu mais le département il peut pas être le patron day sonal malgré cela daa mel ni euh, xamoon ngeen ragal tuuti xamoon xamoon ngeen tiit tuuti ba ba nit ñi jàpp nañ ni que ci ci jour élection yi da doon def ay ay cas de fraude ay cas d'achat de conscience ay. voté euh, eh, la eh, bopp ba fas beeg xam bi ñu eh, nekk école kat. Ah. ñun xam nañ ni oto yi doon gaare. ñoo déglu ma di ah. jugee Caacaw Silaan ak Samba Demba sama xarit Assane nga ne la toog su ñëwee dina ma sànni xeer amul problème mais xam nañ en fait gis nga ma mm-hmm. personnellement laay wax de mm-hmm. damaa jàng fekkee. politique fii ci Bambey yàgg fekkee élection locale fii ci Bambey gis nga soxna si fa mu daan jaar jaar na fa bii yoon de mais dafa gis une coalition forte qui est Benno Bokk Yaakaar faire face moo tax sax ñuy lam ñuy lam-laame ak moom mais ñam fa doon jaar maanaam ñam nekkoon candidat ci yeneen élection ya jàll non lolu la daan def rey léegi ñu dee damaa moom Bambey fekk wa village bi ñëw toog daan Bambey commune léegi nag dafa leer légui nak non non ça ne ma xéer ma je dis ce que je pense ah, ah. ku nekk am le droit wax di la donc japp nañ ni mhm. aujourd'hui ñi ngi gën a saluer la maturité du population de Bambey vraiment yeneen dëkk yi yaa ngi dégg coow lu ne les gens ont dit que vous profitiez de de la chaleur distribuer donc distribuer waale euh, euh, bulletins distribuer donc distribuer les khalis, distribuer distribuer masque distribuer non khalis honorable ah, pour nous pour voter contre la coalition man vais j'assume mes propos. parce que mes propos je les respecte tous. Pape Boye sama papa la. Mm-hmm. parce que moom man sax sama papa. Oulaye mm-hmm. sama xarit la. Mm-hmm. Aliou sama paa bu baax la. mais camp bëri lañ bokk man camp bii laa bokk. on est en démocratie. dañuy défendre seen camp. di xool samay failles di ko exploité man may défendre sama camp di xool seen failles di ko exploité mais waru ci warul leen fekk ci loolu parce que dañu war a accepter l'alternative générationnelle. ils doivent accepter que ñun seeni doom màgg nañ que ça soit Yewwi que ça soit Benno que ça mën xalé yi màgg nañ ñu place bi force mais ce que le ministre a fait ce que l'honorable député a fait def Macky Sall parce que Benno dafa honorable député au moment bi koy y avait des gens plus méritants que lui yu fi nekk fii ci ñu jël ko honorable Pape euh, monsieur le ministre Pape biñ koy jox ndombo tànk ñun ndaw ñi ñu ngi fi yàgg sonn ak président Macky Sall amuñu ndombo tànk mm-hmm. ay responsable ñi ngi fi président jël ko sagale ko loolu kon ñoom loolu nekkul woon seen jël mm-hmm. mais on constate on avance amuñu ci dal def nañ ko ñaaw nañ ci amuñu ci dal li ci des nag mooy le département de Bambey dañ wax alhamdulilah parce que conseil départemental amoon na Bambey mm-hmm. soo duggee ci kër yi fëgg laaj leen ndax xam ngeen conseil départemental dañ naan déedéet parce que amour bi soxna Aïda Mbodj war a am ci Bambey amu ko ci Bambey parce que soxna Aïda su amoon amour ci Bambey jamono jooju du jël koo xamante ne sama yaay la sama xarit la mais waroon na mën a tànn am xam-xam ci choix mu tegal ko bambay, pour kooku liggéeyal bambay. mais li ma yàgg a wax tous les médias du Sénégal mm-hmm. Aïda soxna Aïda Mbodj Bambey intéressé wu ko la preuve non xam nga li tax Bambey intéressé wu ko Aïda a été nommé ci plus grande fille du Sénégal je vous pose la question et je pose la question à la population bambaye. Mm-hmm, à l'opinion publique. à l'opinion publique quel est le cadre de Bambé quel est le cadre de Bambé de Aïda une promotion bi mu nekkee tout près de Abdoulaye Wade très puissant le président français. c'est le Bambé, nag duñ ma le cadre de Aïda def promotion Il est un entrepreneur ba ay da nekkee ministre de la femme ñëpp xam nañ ministre de la femme ay marché la. biñ ne ma entrepreneur bi bambay la ay da def ay marché ba tay milliardaire la mais so démé dans les autres localités mais les responsables qui sont là-bas suñu amee nomination mais doomu gox ba dañuy xalat mais ban cabinet ministériel bu ay da mos a diriger nga gis doomu bambay bu am xam-xam fa nek amul donc kooku cofeelam man du lu ma gëm ci département de bambay te li aussi dafa confirmer waat. waroo mën a ànd ak ay nit ba jongante jot nga ne leen fa ñëpp dem tànn keneen indi ko xeet ña nga nekk ñu ci bari ja ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar jëfin yooyu moo war a denc ci Bambey moom aujourd'hui lenn képp ko mënoon ñoon falu na député falu na ministre nekk na ministre d'état doon na fi lu ne ci réew mi walla wees na jàppale Bambey taxawu Bambey

wala jeunesse su Bambey wala Bambey amul cadre boo xamanteni ni war naa mën a yore course bi ak rectorat bi. je pense que man def naa plusieurs parties mm. pour demander au président. Mm. jox Bambey cër bi mu ko war a jox. waaye nag gëm naa ne bii yoon Bambey dina am cër bi mu war a am ndax nag mu dama lay jox exemple bu palpable. Mm. demal dans le département de Diourbel. da fay fekk un ministre de la république ministre plein neuf décrets de nomination. Un ministre et 9 décrets de nomination mm-hmm. dans la commune de Durban. Marifa Le département nous l'appelé. Wa bambe a directeur général bu nous mm-hmm. directeur national yu est gagné. Mm-hmm. un ministre plein bu portefeuille. Et pourtant, on a détourné la soi-disant du Bawal gagné dans le département gagné ko dans le kon le président Macky Sall war na delloo Bambey nag li mu war a am on réclame on réclame ouvertement pour que l'université de Bambey mujj ci ay loxo de Bambey ay loxo Bambey moo xam man la moo xam keneen la moo xam keneen la mais Bambey am na ay doom yu nekk Bambey mën a jàppale Bambey mën a yor université bi jàppale ci ay doomu Bambey parce que soo fa demee fi mu toll yow foo dëkk Cœur Il faut de Guilala et Mais attends, nous le demandons solennellement. Monsieur le Président Macky nous vous demandons solennellement de jël doomu Bambey teg ko ci li nga xamante ne mooy université Bambey ngir Bambey université bi nekk mën am population bi mën koo jariñoo loolu un cri de cœur et c'est est une demande sociale monsieur le président Macky Sall ñu koy demandé. il est vraiment temps bu li ngeen di wax am na mm. euh, gagné ngeen commune de Bambey gagné ngeen je, On a détrôné la Lyon. J'accepte que vous avez gagné le département de Bombay. Euh, on, on, on, attend de voir. Euh, ndax def ngeen appel euh, ba xam ndax yéen a yéen a yéen a yore euh, commune de Bambey ou pas mais daal xam naa rectorat. avant avant avant avant que teg me ma ma remercier. waaw xaaral dinaa la may ay man tey sama invité bii non <laughs> rectorat bi euh, université Bon, dafa war revenir au Bambey wa parce que vraiment. direction générale Waouh, vraiment affaire de doy na waar. Euh, waa Bambey daal sentiruñu seen bopp. c'est fi le président de la république le message est là waa Bambey daal loolu lañ ma yóbbante. donc bon dernier am na yóbbante le retour de notre coordinateur départemental dans le gouvernement il est le seul.

mu delloo monsieur le ministre Mor Ngom gëdd bi mu amoon ci gouvernement Sénégal. parce que ñu bari wan nañ ko ginnaaw. Mhm. te pourtant la mu def monsieur le ministre Mor Ngom mu wan ko ginnaaw ba tey mi ngi téye département bi. Mhm. ba tey mi ngi ànd ak responsable yi. ba tey mi ngi koy liggéeyal ci Benno Bokk Yaakaar national et départemental. ba tey mi ngi koy liggéeyal ci chambre des élus te laaju ko daal ñun nag waa Bambey ñoo soxla poste ministre plein boo xamante ne a mën a jariñ Bambey mais nag résultat yi nga gis yëpp ci Ce qui Benno Bokk Yaakaar à c'est de la jeunesse au mouvement présidentiel. L'état d'engagement, avant élection yi gisuñu jeunesse su Benno Bokk am organisation on a pris l'engagement, manak, pour que nous organiser la jeunesse Benno Bokk porter la campagne dem gagner le département avant campagne de coup, on a vu organiser une assemblée générale des jeunes des jeunes de la coalition Benno Bokk Nous venons de parti bu ci Nous ndaw yépp l'opinion, à à l'unanimité ils ont décidé de me mettre devant la jeunesse Bernard Bokk Avant la campagne on a formé la jeunesse de Benno pour nous xam nan nous ñuy ay proximité nan appeler les candidats yi nekk ci commune parce que notre objectif était était de gagner les 12 communes mm-hmm. donc la jeunesse pour accompagner les 12 candidats yi nekk ci commune au niveau de la coordination départementale. on a accompagné tous les comités de jeunes yi nekk commune dans le département de Bambey. te ñëpp nous nous nañ tey que victoire bi vraiment c'est une victoire de la jeunesse candidat de jeunesse jeune directeur de campagne de son excellence la jeune la. jeunesse Benno Bokk Yaakaar yi encadré candidat bi ba nous gagner ay jeunes donc une victoire jeunesse bi la ñu aussi le président Macky Sall. Il jeunesse a Sénégal jeunesse au Sénégal. Les gars qui koy am ñi ngi koy ñaan mu defal la jeunesse de bambay parce que mérito nañ depuis la campagne ba depuis l'élection, ba ils sont été loyaux au président Macky malgré que Wachel est suñu ministre def na lu responsables. responsable on est resté loyal Quel musul dégg la jeunesse de Bambey def conférence de presse attaquer le président Comme cette jeunesse qui a détourné détrôné la philosophie du Baba non non non parce que parce que parce que. parce que c'est du département de malgré du département de pousser mères et la jeunesse parce porter le développement va développer le département de et vous avez six communes sur les douze. fait aussi. objectif le moment que je suis en train de moi je suis un responsable pour accepter dettes pour mieux sauter. On a perdu 6 communes. Et après, on a gagné le département de combat. On va reconquérir ces 6 communes. C'est la politique. Est-ce que son commun a gagné une commune du Sénégal Ça a gagné une commune. On a produit. on a perdu ces communes. La jeunesse devait porter le combat dans ces communes-là, récupérer les portes cartes garde de l'Europe président. Mais ça, on le fera et on va le réussir Inch'Allah. Wow, en uh, perspective des élections législatives qui uh, sont bientôt Il y a ce dernier mot. Mon dernier mot moi, de remercier la jeunesse de Bokk uh-huh. uh, de remercier les responsables de la coalition de Bokk de di de ci le président. de la coalition de Bokk M. le président Macky uh-huh. le coordonnateur de la coalition M. Morgom. Uh-huh ak ñoom Dip Thiaw ñooñu topp ci avec les autres mais on les remercie tous di leen wax ne ñun Bambey moo ñu ñor que ça soit Benno que ça soit yéen l'intérêt de Bambey ñun ñëpp moo ñu animé kon Comme naa ne su lii lépp weesee ba élection yu Kangam kàngaam ñëpp dinañ retrouver autour de l'essentiel Japonais Bambey pour que mu ne nëkk sërëb bi ñu nekk nous mm-hmm. nekk un département qui brille mm-hmm. au niveau du Sénégal qui brille au niveau de l'Afrique et qui brille au niveau mondial. Il est temps. Avec Jacques André c'est possible. Il est, vraiment temps Allez, que, que Bombay brille de mille feux parce que méritons ko vraiment euh, et n'oublions jamais que c'est Bombay qui gagne au-delà de Benno Bokk et de Yves Astani, nous sommes tous de Bombay. euh, nous pouvons pouvons war a pour euh, dëkk avancer machallah on aura un plateau Inch'Allah, avec Mounia et Inch'Allah, avec la jeunesse de de de bientôt Inch'Allah. voilà on vous remercie et merci aux amis internautes qui nous suivent à travers Bombay TV. Merci.